ñi fi fekk ñëpp rawatina dogitu Seydina Muhammad wi nga xam ni moo tax ñu ñëw fi ànd ko ak sunu kilifa gi mu ànd ko ak maire de la ville monsieur Talla Sylla gunge xaritam mbokkam dëkkandoom ñu bokk fu ñuy liggéeyee muy madame le de l'économie numérique et de télécommunication du porte-parole gouvernement bi madame Ndeye Tické Ndiaye Diop moo ñëw fan këram ànd kook monsieur le maire ak délégation bi su ma nee këram nag duma juum ndax booy wër rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di wër dog boo duggee Thiès fii ngay dugg te yaakaar na ni képp ku nekk ci ñun du wuyu ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammada rasulullahi seen maam rek la ñu yaakaar moo waral ngeen tàntal ko guddi gu rëy gii dama ni xër rek waaye yéen seen maam li ne ci àdduna di ko tàntal guddi par guddi doyoon na sëkk waaye nag jàppale nit ñi seen bés seen guddi maam moo waral ngeen xewal bi ngeen ngeen amal guddi gi kon shérif ñu ngi lay ziyaara yaag ahlu rasul yi fi nekk yëpp la sa maam waxoon rek la ñuy feddli ni asbaxtu laa budda lii min shaairi l arab min alkarimi alladi yuxtil bila sabab mu ni xalaqtu baabal karimi la sharika lahu bi bismihi wa bi jaahi sayidi l arab yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku rek moo ñu fi andi ci seen barke baam seen barke bàyyi rawatina seen si Cheikh Abdoul Aziz ndax góor la woon goo xamante ni fii la toogoon Cees yàlla boole koog ñun muy cadeau bu mu ñu jox waaye ku ma sa tiit ku ma sa jàq ku ma sa am jiixi jaaxa sa xel fu muy dem ci deretu yonent yàlla Muhammad muy Moulay Abdoul Aziz yal na yàlla yokk leen fu mu tëdd waaye ba mu demee jaaxle wuñu ndax ñii mu fi bàyyi muy shérif sama gannaaw ak i rakkam lépp lu seen waajur wa taxawee woon yor ko ci deret rasulullahi bàyyi na ko fi yor nañu jukko ëpp di artuwaa Thiès ji leen jàppale ji leen dimbali ji leen aar moo waral madame miss ñëw tey jii ànd ak délégation am ànd ak monsieur le maire Talla Sylla ñu ma daf lay seet si seet si bu rëy bi ndax wax dëgg yàlla yow nekk na nit goo xam ci dëkk bi madame miss gis na sa ñaan gis na sa yéene ci moom gis na sa jàppale ci moom kon Cherif am na ci loo xam jarul guddal dañuy bàyyi joxe kàddu yi ñu seet kan mooy jël kàddu yi incha allah ba keroog mu yegg fa mu yegg salaamaaleykum. Cheikh bi ñu ngi lay nuyu di a baax. Cherif monsieur le maire Talla Sylla ñu ngi lay nuyu di la ziara. di sunu kilifa. nee ngay seen kilifa. di sunu xarit. na ngay seen xarit. waaye kilifa gi. waaye nag ñoom ñu taamu kilifa gi. tey jii nag nee na tey jii. dañ doon gunge. nee dafa ñu doon gunge. dañoo jógoon gunge. nee dañoo jógoon di gunge. suñu mag. nee seen mag. suñu xarit. nee seen xarit. Euh, ndaw suñu magit suñu xarit. nee ndaw seen magit seen xarit. moom mi di soxna Ndeye Tické Ndiaye Diop. muy soxna Ndeye Tické Ndiaye Diop mi toog. nekkaale it ndaw suñu xarit boobu ñu bokk di président Macky Sall. nekkaale ndaw seen xarit boo nga xam ñoom ñaar ñoo ko bokk muy président Macky Sall. ñu sawar lool it ànd ak moom. nee na mu sawar lool it ànd ak moom. ñëw fii ci yéen. nee na ñëw fii ci yéen di ëhlu rasul. nee na fekk fi njaboot gu tedd gii fi daje. fekk ñi nga xam ne dañ fee ñëw ngir dundal euh, ñetti guddi yi. nee na fekk fi ñi nga xamante dañ fee ñëw di dund ngir dundal ñetti guddi yi. Euh, ñu di leen ko gën a dénkaat. nee na ñu di leen ko gën a dénkaat. ngir ku baax la. nee na day madame la ministre mi ku baax la. ngir liñ ko dénk diis na. nee na ndax de la ko président dénk diis na. te mu soxla ci euh, lu ko téel. nee na mu soxla si nag ku ko téel. suñu faral dee dénk nit dara ci senegal nee na suñu faral dee dénk nit ci senegal dara. nit ñëpp dañ koy ñaanal yéen bi woyof. nee na ñëpp dañuy ñaan yàlla na yéen bi woyof. waaye ñun fu ñu toll dañ koy ñaanal yéen bi diis gan. nee na fu ñu toll dañuy koy ñaanal madame Miss yéen bi diis gan. te mu am kàttanu yéen. nee kàttanu yéenu ko nag. kàttanu yenu mi ngi am ci ñu la yenu mi ngi tàmbalee ci nga am ñu la yenule. nee na kàttanu yenu mi ngi ci nga am ña la yenule. dina am ñu la yenule ci zaahir. nee na bu la bu ñu la yenulee ci dina am ñu la yenulee ci baatin. waaye bu ñu la yenulee ci baatin tam. Euh, ñooñu la yenule ci baatin. nee na yenul ci baatin. dana wàññi lu bëri ci diisaay dana wàññi lu bëri ci diisaayu yéen ba. ci ni nga koy yëgee. koy yëgee. waaye du tee mu diis. waaye du tee nag yéen ba diis. ndax nag bu nit ñi dajee ci penc. nee na bu ñu dajee ci penc. te xiif. nee xiif. boo leen indilee palaat doyu leen. nee boo leen indilee palaat du leen doy. pourtant palaat woyof na. palaat dafa woyof. kon waxuma la duubal booli. nee na waxul duubal booli de. waaye danga leen di yóbbul ay mbana. waaye da nga leen di yóbbuli mbana. waaye nag faaw mu diis. nee nag yéen bi diis de. boo amee ñu la yenule. waaye boo amee ñu la yenule. dootoo ko dootoo yëg kàttan diisaay ba. nee na ñoom yaakaar ci yéen nee na ci téye boobu pour ñu teel ko ko nee na mi ngi dellu di la dénkaat madame la ministre jële ko dénk ngir ci président la jóge na jële ko dénk ngir ma nga jóge ci borom réew mi président Macky Sall jële ko dénk ngir ministre la bu dëkk ci Thiès ngir jële ko dénk ndax ministre la bu dëkk ci Thiès jële ko dénk ngir sunu wóllëre jële ko dénkit ndax wóllëre la li ci des it ngir daa dëppoo li ci des nag dafa dëppoo ak sa mission ndax yow da sëriñ bi da defar rek di ñodd rek di jëmale ci jàmm. nee da ngay ñodd jëmale ci jàmm. loolu a xalaat. nee loolu mooy sa xalaat. loolu wax. nee loolu nga mas a wax. loolu nga mas a dox. loolu nga mas a dox. moo tax itam. nee na moo tax. xam bu baax ne sawaroon nañu ñëw dox dox. sawaroon nañu ngir ñëw gunge seen jigéen ci dox bii mu ñëw tey. Chérif madame ministre nee na ñu ngi lay ziyaara. nee na mi ngi laa jox sa wàccuwaay. nee na ñu ngi ziyaar ñi ñu fi fekk. nee na mi ngi leen di nuyu. nee na mi ngi sargal ñoom itam. nee na mi ngi am contentement. nee na ñëw bi mu ñëw fii tey. nee na nga dëkkmal. mu ni guddi gu am solo wala bés yu am solo. nee ngay màggal. sa maam. waaye nag ñun tamit sunu maam.

mu ne la tànk cofeel la ak wane ak renforcement kóllëre nee na tànkam yi tànk yu am solo la ànd ko délégation bii ko gunge yëpp nee na ñoom ñi nee na ci ñoon nee na mu amaat beneen mbégte nee bi muy ñëw nee na mu ànd ak délégation bu mag bii mu àndal waaye ci délégation bi nee na mu ànd ak sa xarit nee na mën naa wax say soppe mën naa wax say taalibi waaye monsieur le maire nee na sa digganteeg moom xëy na am na lu ëmp nit ñi sa diggante moom ci lu bari waaye am na lu bari lu ci nit ñi xam muy maire de la ville nee na nag di dara nag ci biir Thiès di yor yor bu rëy nee na ba pare nee na di mbokkam nee na di xarit tamit nee na mu ànd ak euh, waa Bennoo Bokk Yaakaar yi ànd ak ay mbokki boppam rek nag ak i xaritam nee na délégation bi mënoon na ëpp li waaye day bañ a ñëw rek indi encombrement sonal la rek. waaye Chérif nee moo tax mu yemale ko nii waaye Chérif xamal ni nee na day ku fonk lañu ministre nee na ku fonk bés bi lañu eh, nee na lii taala wax léegi monsieur le maire di ci sàkku ñaan di dénkaane nee moom du def lu dul dëggal waxi monsieur le maire ji nee xam na ni sax da yaa ngi ñaan waaye moom dafay ñaanal day sàkkul ñaan muy président de la république monsieur Macky Sall nee na ndax de nee na sa diggante ak moom nee na moom de xam na ko nee na waaye nee na la nga koy ñaanal ndax réew mi nag mi ngi ci kawam moo ko yor nee na te nag ah, nee na président dafa soxla. muy ndam dafa soxla dafa soxla jàmm ci réew mi dafa soxla dafa soxla naataangi ci réew mi dafa soxla def mission ci réew mi muy mission bu mucc ayib ci biir réew mi nee na moom président nee na bu amee ndam nee na ñun ñëpp dañuy daal di àndandoo am ndam nee na am ndam nee na kon président nday am ndam nee na loolu mooy ñaan gi mu lay ñaan loo ci président nee na yàlla def ci réew mi jàmm ah, yàlla def ci réew mi naataange nee na ñun bu ñu manqué taw waaye def ci nag dal ci réew mi nee na fan yi am na yu bari ñuy dégg muy am ci réew mi nee na muy lu ñaaw jëm ci xale yi jëm ci sécurité nee yéen nee ci seen barke maam diine yi. yéen nitu diine yi. Ah, am na wax defe ne. am na wax. waaye am na it ñaan de. naam président li ko war def. président la ko war ma ngi koy def. dogal nee dogal. teg ay daan teg ay daan. waaye faw na nag ngeen wax te ñaan. nee na yéen. di déglu. nee lu waay ñuy génne. dañuy ñaan ñaan ngeen wax ci. actualité la. ñu ne léem loolu te mu actualité la. comme yàlla ci seen barke maam am na lu mu leen defal. comme yàlla ci seen barke maam am na lu mu fi lu mu leen defal. bu ngeen ñaanee mu nangu. neen su ngeen ñaanee yàlla nag mu nangu. bu ngeen waxee su ngeen waxee ñu déglu leen. waaye Chérif madame la ministre nee na ñu ngi lay dékk loxo di ko dékk président pour nga ñaanal ko yàlla ci réew mi ci Sénégal yëpp. waaye ci Thiès gi ne. rawatina Thiès gi ñu ne. Euh, dafa am lu ñuy def. ñu nekk ci li ñuy wax majorité. wax ci bennoo bokk yaakaar. nee na ñoom ñi ñoo bokk ndey ak baay. di ñaan nga ñaan ci unité bi. nee na ñu man di xàccandoo. tey di dóorandoo. nee na borom kër. li mu am ci këram. dafay bëgg jàmm ne fa. nee na jàmm fu mu nekkul. borom kër gi dafay sonn. nee na kon yooyu dafay bëgg nga ñaanal ko ko ci Thiès waaye nga ñaanal ko ci senegal yëpp nee na wax ji loolu la woon nee na tànk yi mooy tànk jàmm rek la woon nee na mënul woon a bañ a ñëw ci dëkkam bi nee na loolu mënta nekk nee na teyit amoon na gàllankoor yu bari waaye dañu ni bu soobee yàlla fu ñu jaar te gannaaw façon nañu koy yéene yàlla dana leen may ba ñu yeggaleeg jàmm mu si fi nee na ñu ngi sant yàlla nee na sant Chérif di fedd li wëllëre sa digg moom ak ak ma monsieur le maire ak ñi ngi ñaan lii ngeen dugg nee na ñun ñu ànd ci dugg ci ak yéen. commencé ko ci bismillahi rahmani rahim eggale ko alhamdulilahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jërëjëf bismillah sëriñ bi moo ma ko jaral moo danu maamam ki kamaal moo di satub xayru rijaal yonentey maamam ay dara sëriñ seex naama ay dara seex na seex abdul aziz mooy sa baay seex na seex saadu abi mooy sa maam seyduna muhammad mooy sa maam sa maam Cheikh Saad bu nee na xaala abu abdul asis il am sali mustaghfiran min kulli zanbin azali Cheikh Saad bu nee na saadu abi faadali alxalxami mubtadi an bismi ilahi alazami hamdan liman ala alhuda hadani zuma ila tariqati aljilaani sirif Cheikh Naama Aydara ndonom li foor na waaye moom du bakku naan du ma moroom yàlla ko def amul moroom sérif seex naa ma ay dara lislaam bi fal na ko du tey taalub yàlla bul jéem a fay ki woon démb moo del si tey ji ñu duy ko leere ay dara ah mboolo mi ki nga xam ne moom ngeen tey ñëw fii di ko siyaar muy sérif seex na seex naa ma ay dara di xalifa seex na seex abdul asiis di xalifa seex na seex saad bu mm-hmm. du loo xam ne nag ay nita ko kere nii di ko wax rek wala dañoo dañ ko fan di ko waxal maamam seex na seex saatbu moo bindan ci way juram seex na seex abdul aziz ne bés bu moo demee ba mu am ñeent fukki at sama sët dana juddu bu ñëwee mooy nekk man may nekk moom ñu ne ko ay waxi kese de mënta tax ëllëg ñu am fu ñuy sukkandiku mu bind ci juróom-ñaari xasida bind ci xaala abou abdul aziz il amzali xaala abou abdul aziz saado xaala aboo abdul aziz ahmadu ba mu nekk juróom-ñaari xaala aboo bu doon tampon ñu ne juróom-ñaari tampon la ko tamponeel seex na seex abdul aziz ñëw méngoog jamono li seex na seex saat bu waxan lépp ñu ko gis ci moom muy saafoon te kilifa diine yi kum jox loxo nga ne ko yow la muy doxalool ci Sénégal di ko doxal ci Sénégal di ko doxal bay waaj a woo taawam bi nga xam ne mësuñu koo xam ci lu ñaaw ñoo bokk Cees depuis ñu nekk xale ba mu nekk mu kàllaf ba ni mu toogee ci xalifa Seex na Seex Saad Bou mësuñu ko gisal ci loo xam ne lii luñ koy ñàkkal luñ koy weddee la toujours mu ngi teg tànkam fa ko maamam Seydunaa Muhammad teg teg tànkam fa ko maamam Seex na Seex Saad Bou teg teg tànkam fa ko baayam Seex na Seex Abdul Aziz teg mu Sëriif Seex naa ma ay dara baayam ne moom mooy sama xalifa àdduna ak àllaaxira saahiran wa baatinan génn fi bàyyi ko fi ba mu ko fi bàyyee ba tey itam kenn mës koo joxoñ baaraam lépp ci yàlla ak yonent bi la koy doxal ak loo xam ne lii day jëmale senegaal kanam bu tey nag moom ngeen ñëw di siyaar tey seen siyaar sànniwu leen ko bu ngeen ñëwee ba toog ak ki nga xam ne moom mooy xalifa Seex na Seex te Seex Saad bu ne woon Seex Abdul mooy sama xalifa Seex na Seex Abdul Aziz ne Seex naa ma mooy sama xalifa nekk ñaari xilaafa yépp mu ngar daajoo ko yore ko ngeen ñëw tey tàkkusaan bi ñëw di ko siyaar ci bésu xamdi wa sukkur li rabbi xamdi wa sukri laylatul xamdi wa sukri li rabbi xamdi wa sukri guddi gi nga xam ne seex na seex Abdou Aziz moo koy jël cuqati ko tànn ko jagleel ko bàyyam ba seex taalibu ya ne bu mu fay ba mukk taawam bi ñëw dëggal lool lu seex na seex Abdou Aziz benn seex naa ma def na ko ñett yokku lépp aoudu billahi min ashari shaytaan rajim la hawla wala quwata illa billahi al ali al azim bokki ji li ñuy déglu àdduna wërngal képp ñoo ngi fii tey kër Cherif Cheikh Niama doomu Cheikh Abdoul Aziz doomu Cheikh Talib Boye doomu Cheikh na Cheikh Saad Bou waajuram Cheikh na Cheikh Abdoul Aziz maamam Cheikh na Cheikh Saad Bou bindoon ci moom mooy xasida bi nga wax léegi euh, qaala abou Abdoul Aziz al amthali mustaghfiran min kulli dhanbin azali ne sama gannaaw dana am ku ñëw ci man mooy doon sama werukaan muy Cheikh na Cheikh Abdoul Aziz waaye nag alfadili alqalqami alxasani almuxtaari alfadili bu ngeen ko déggee mooy cheikh na saad bu cheikh Mouhamed Fadel ay waajuram alqalqami ku génne ci cheikh Sidi Yahya alkabir alqalqami sa chérif wér na amul sikki sàkk amul laam laame ca fa la génnee alxasani alxasani almusanna xasan bi ñu duppee xasan yaayam di fatimatu Euh, yaayam di Fatimatu euh, yaayam di Fatimatu bintu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mul mul xasanil musanna waaye li ci gën a yéeme mooy ñoom waa kër Cheikh na Cheikh Saad bu ñu ngi génne ci Abdullahil Kaamil lan moo war a ñëwoon ko Abdullahil Kaamil mooy première sëtu yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci kaw suuf ci ndey ak ci baay mooy xasanil musanna boobu moo jur moom moo jël Fatimatu doomul Xuseyn bi mu duppee yaayam ñu jur Abdullahi Kaamil moo tax ñu ne ko Abdullahi bu mat bi ci ñaari côté yi fees dell ak leer jërëjëf seen maam ñoom ñii Cheikh Neama nag comme ni ko ni ki waxee tey bu Cheikh na Cheikh Abdul Aziz Cheikh Cheikh na Cheikh Abdul Aziz remplacé ko yombul deux 2006 la génn àdduna àdduna bépp di jooy ne àdduna tukki na gannaaw Cheikh na Cheikh Abdul Aziz génn àdduna amatu ku koy remplacé waaye bi Cheikh Neama toogee ñëpp fàttali nañu Cheikh Abdul Aziz kon bu dellusi woon tey sa jotaay doo ko defaraat yal na la fi yàlla yàggal ren la ci fukki at ak ñeent waaye bis bi at bu nekk day gën a yokk kon Cheikh Naama yàlla nga fi yàggati wér kon Serif Cheikh Naama nee na ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi am mbégte torop Serif nee na mu ngi am mbégte torop ci délégation bi nga xam ne moo fi teew tey yi nga xam ne ministre Ndeye Tické moo ko jiite. waaye ànd ak càmmiñam. waaye ànd ak càmmiñam. di genn wàll. di genn wàllam. Cheikh Talla Sylla. di Cheikh Talla Sylla. ñu ñëw fii. ñu ñëw fii. pour ziar si. pour ziar si. Euh, président yónni leen. leen. kon maa ngi leen di gërëm baax leen sant. kon Serif Cheikh Naama nee na mu ngi leen di gërëm te mu ngi leen di sant. mu ngi leen wax nit ñu dal ak jàmm ci kër gi. mu leen di wax ngeen dal ak jàmm fii ci kër gi. kër gi seen kër la. kër gi seen kër la. suma kër. du këram. kër Cheikh na Cheikh Abdoul Aziz. na Cheikh Abdoul Aziz. ne woon na jullit yëpp ñoo moom. ne jullit yëpp ñoo moom kër gi. mu dem ba yàgg. mu dem ba yàgg. mu ne képp kuy doomu aadama. mu ne képp kuy doomu aadama. ak foo mënti jógee. ak foo mënti jóge diine boo mënta bokk. diine boo mën a bokk. kër gi sa kër kër gi sa kër la. ñu ne ko Cheikh na lu tax wax boobu ñu ne ko Cheikh na wax boobu lan moo ko indi mu ne Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam mu ne Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam dafa toog ci jàkkaam ci Madina dafa toog ci jàkkaam ci Madina ba ay juif ñëw ci moom ba ay juif ñëw ci moom bi ñu ñëwee ci moom bi ñëwee ci moom mu dalal leen ci jàkka ji mu dalal leen ci jàkka ji mu ne aywa jàkka ji mu ne aywa jàkka ji maa moom genn wàll bi maa moom genn wàll gi yéen a moom genn wàll yéen moom genn wàll bi ci des seen julli ngeen di def seen julli boobu ngeen di def mu nekk julli julli Yaxya eh, eh, julli Ibrahim. mu nekkan julli boo xam ne julli suñ maam Ibrahim la. mu nekkaat julli Isxaaqa. mu nekkaat julli Isxaaqa. jël leen paar ba la jàkk yi ngeen ko fay jullee. jël leen paar bee ci biir jàkka ji ngeen di ko fa jullee. te munoo wax ne sëb Seydina Muhammad nga. te munoo wax ne sëb Seydina Muhammad nga. te njabooteewuloo ñëpp. te njabooteewuloo ñëpp. kon damay wax ni kër gi seen kër. kon def leen di wax ne kër gi daal seen kër la yéen ñëpp. man lañ fi bàyyi nag leen ko. moom nag moom lañ bàyyi moo leen yoral kër gi Euh, di nuyu président. di nuyu président. di ko gërëm. di ko gërëm. di ko sant. di sant. di ñaan yàlla comme ni nga ko waxee. di ñaan yàlla comme ni nga ko waxee. yàlla na ko yàlla jàppale ci mission am. yàlla ko yàlla jàppale ci mission yàlla def jàmm. yàlla def jàmm. ak barke. ak barke. ak dal. ak dal. ak xéewal. ak xéewal. ak naataange. ak naataange. ci réew mi ci réew mi. parce que réew mi ñun ñëpp ñoo ko moom. ndax réew mi ñun ñëpp ñoo ko moom. yaakaar na li ma ci am ci njaboot. yaakaar na ne lim am ci njaboot. ci réew mi ci réew mi. président Macky Sall sax amu président Macky Sall sax amu ko. boo demee ci police sama njaboot lañ. boo demee ci police sama njaboot lañ. nga dem ci naari sama njaboot. séeréer yi sama njaboot. olof yi sama njaboot lañ. olof yi sama njaboot lañ. bambara yi sama njaboot lañ. xeet yi fi nekk yëpp. kon xeet yi fi nekk yëpp. sama njaboot lañ sama njaboot lañ man Serigne Cheikh Naama. parce que ku ci xëy. ndax képp ku ci xëy. bu julee bu julee. mu ne allahumma salli ala sayyidina Muhammad. bu waxee bu julee allahumma salli ala sayyidina Muhammad. mu daal damay ñaanal. mu ñaanal Serigne Cheikh Naama. wa ala alihi wa ala alihi yàlla teg si ñoñom yi ak saabaam kon ñu ngi ñu ñaanal bis bu nekk kon ñu ngi leen di ñaanal bis bu nekk kon ñun waa kër Seydina Mouhamed kon ñun waa kër Seydina Mouhamed ñoo jaboote ñëpp ñoo jaboote ñëpp kër gi mooy seen kër kër gi mooy seen kër euh, kër gi yéen a ko moom. kër gi yéen a ko moom. loolu fi bëgg moo fi am. lépp lu ngeen fi bëgg loolu moo fi am. waaye dama gën a kontaan. waaye damaa gën a kontaan. ci yow soxna Ndeye Tické. ci yow soxna Ndeye Tické. miinantewuñu. miinantewuñu. waaye wax yu rafet yi may dégg ci yow. waaye wax yu rafet yi nga xam ne maa ngi koy dégg ci yow. Euh, loolu wax dëgg yàlla kontaan naa ci. loolu wax dëgg yàlla kontaan naa ci man Serigne Cheikh Naama. ma que kii di monsieur le maire di Cheikh Talla Sylla. ndax kii di monsieur le maire di Cheikh Talla Sylla. dafa nekk sama genn wàll. dafa nekk sama genn wàll. dañuy waxtaan ba ay quatre heures quatre heures matin. mu nekkaat sama conseiller. mu nekkaat sama conseiller. bu ñu toogee di waxtaan. bu ñu toogee di waxtaan. dañu waxtaan ci lu nekk. dañu waxtaan ci lu nekk. waaye de waxul ci wax bu ñaaw. waaye mësul wax benn yoon ci wax bu ñaaw. wax na ci wax yu rafet. wax na ci wax yu rafet. ba wax deret bi ngeen bokk. ba wax deret bi ngeen bokk. wax càmmiñ ak jigéen bi ngeen bokk. ba wax càmmiñ ak jigéen bi ngeen bokk. ba wax sa dëggu. ba wax sa dëggu. ba wax sa njàmbaarte. ba wax sa njàmbaarte. ba wax sa liggéey. ba wax sa liggéey. toujours ci loolu lay nekk. toujours bërki bi rek moo ci loolu lay nekk ba bii ci guddi moo ci mujj. mu ñëw ak délégation mairie. mu ñëw ak délégation mairie. ñu daal di indi seen teranga. ñu indi seen i bi ñu paree man ak moom dugg suñu biir néeg waaye biñ baree dañoo dugg suñ biir néeg mu lay seedewaat loolu mu lay seedewaat lu baax ci yow Cheikh Talla Cheikh Talla yàlla na ko yàlla may gudd fan yàlla na ko yàlla may gudd fan Cheikh nit ku baax la Cheikh Talla nit ku baax la bi ma xamanteeg moom ba léegi bi ma xamanteeg moom ba léegi mu ngi dem ren ci juróomi at mu ngi dem ren ci juróomi at masuma ko dégg masuma koo dégg fu mu waxee lu ñaaw ci doomu aadama fu mu waxee lu ñaaw jëm ci doomu aadama benn guddi dañu toog man ak moom di reer benn guddi dañoo toog man ak moom di reer muy reer ba yàgg mu téye kuddu gi muy ba ci yàgg mu téye kuddu gi ma Cheikh naa mu ne ma seex naa ma sët Seydina Mouhamed nga sët Seydina Mouhamed nga maa ngi lay seedeel ne maa ngi lay seedeel ne képp ku ma mas tooñ képp ku ma mas a tooñ baal naa la baal naa ko te képp ki nga xam ne man Cheikh Talla mas naa la tooñ te képp koo xam ne man Cheikh Talla mas naa laa tooñ maa ngi ñaan yàlla mu baal maa ngi ñaan yàlla kooku jéggal ma ñu continuer ñu continuer ko saa waay wax bi. mu ne ko waaw Cheikh lu indi wax bi. mu ne ma yaay sëtu Seydina Mohamed. mu ne ko yaay sëtu Seydina Mohamed. dama bëgg yowmal qiyaam. damaa bëgg yowmal qiyaamati. nga seede ma. nga seede ma. sa kanam maam Rasulillah. sa kanam maam Seydina képp ma mës a tooñ. ne ku ma mës a tooñ. baal naa ko baal naa ko. képp ki nga xam ne man taala si xam ne man taala si la tooñ naa kooku. maa ngi koy baalu maa ngi koy baalu kooku jéggal ma. lii dong laa bëgg nga seede ma ko. ñu suñu reer. ñu toog fi benn jamono. ñu toog fi benn jamono. nga am ay problème nga am ay problème. moom mii ñëw. moom mii Cheikh Talla ñëw. ni ma ñaanal sama jigéen. ne ko ñaanalal sama jigéen. ñi ñi ko bañ bëri nañu. ñi ko bañ bari nañu. waaye gaynde la de. waaye gaynde la de. jigéen la mu ne bu sol tubayu góor. mu ne jigéen la boo xam ne tubayu góor la sol. lii Cheikh Talla seede na ko. lii Cheikh taala seedeel na la ko fii. ragaluma ko. ragaluma ko ragaluma ko ëpp doole. ragaluma ko ëpp doole yàlla laa ragal lii seede naa ko ci moom lii seede naa ko ci moom Cheikh Talla mu wax ko fii. waaye am nga benn rakk it. waaye am nga benn rakk. bu ñuy wax Oustaz Ndiaga faal mii. bu ñuy wax Oustaz Ndiaga Fall bii. amul wax bu rafet masula wax ci yow. amul wax bu rafet boo xam ne bàyyi na ko rek te waxu ko ci yow. waxtu bu nekk. waxtu bu nekk. ci la nekk. ci la nekk. damay nekk waalo. damay nekk waalo. mu may woo. mu may woo. pour mu lay ñaanal. pour mu lay ñaanal. nit ki li am rek il faut nga seede ko. nit ki li am rek nga seede ko. parce que euh, man ka tamit shahadatan ki xam ne am na seede bu boo yor. te waxoo ko képp koo xam ne am na seede boo xam ne nëbbu nga ko te yor ko. yowmal qiyaam da am problème. yowmal qiyaamati da nga ci am problème. kon lii il faut ma seede ko. kon lii il faut Serif Seex naa ma seede sama kanam. bokk na ci nite bokk na ci nite bokk na ci diine bokk na ci diine bokk na ci amaana bokk na ci kóllëre kóolute amaana amaana mooy euh, mooy dénkaane mooy dénkaane nga daal di wax lii mu daal di wax lii parce que ndaxte ku nekk xam na ni ku nekk xam na ne adduna bi léegi adduna bi léegi mu ngi teg ci kaw division mu ngi teg ci kaw division waaye division bu amee waaye division bu amee Euh, doole dootul am. doole dootul am. parce que yàlla subhaanahu wa taala moo ni. ndax yàlla bu subhaanahu wa taala moo wax ne. waatasimu bi hablillahi jamii'an a laa tafarraqu fa yansurakum allah. jàpp leen ci buumu yàlla ngeen nekk benn su ko defee yàlla dina leen bayreel. waaye bu ñi kii diviser. waaye ki nga xam ne moom day diviser. bu diviser. bu diviser ba pare. lan la ci am moom. lan lay am ci diviser ba mu def. moom mooy daal di rëññee. moom mooy daal di rëññee rek. kon xam leen seen bopp. kon xam leen seen bopp. xam leen fi ngeen jëm. xam leen fi ngeen jëm. xam leen leen tax a jóg. te xam leen leen tax a jóg. kenn bañ a dugg seen diggante. kenn bañ a dugg seen diggante. ginnaaw loolu. ndax ginnaaw lool Sénégal mii. Sénégal mii. jàmm rek fi am. jàmm rek moo fi am. lu mu yàgg yàgg. lu mu yàgg yàgg. parce que. ndaxte. nit yàlla bu nekk. nitu yàlla bu nekk. ñaan na fi yàlla. ñaan na fi yàlla. góor yàlla bu nekk. góor yàlla bu nekk. taxaw na fi taxaw na fii góor yàlla bu nekk góor yàlla bu nekk tëdd na fi tëdd na fi góor yàlla bu nekk góor yàlla bu nekk dëkk na fi dëkk na fi waaye nag ñu ñoo ci des waaye ñun ñoo ci des parce que inna allaha la yuqayiru ma bi qawmin xata yuqayiru ma bi anfusihim yàlla daal amul benn xeet boo xam ne dañ leen soppi lu lu xeet ba ñoom ñoo jéem a bëgg a soppeeku yàlla sopp jàpp leen jàpp tànku maam ya kon nañ jàpp tànku maam ya ak suñuy maam ak suñuy maam ak cosaan bi ñu ak cosaan bi fi fekk ak suñuy aada ak suñuy aada buñ ko làmboo rek buñ ko làmboo jàmm ak salaam jàmm ak salaam rek moo fi am dama toog benn bés. dama toog benn bés. ma jàpp sama doom bu jigéen. ma jàpp sama doom bu jigéen. jël bantu bale dóor ko. jël bantu bale dóor ko. am benn taalibe bu xër. am benn taalibe bu xër. ni ma seex na bul ko dóorati. ne ma seex na bul ko dóorati. ah moo ne ko su ma ko dóorul jàng de. boo ëllëgee boo ñëwee di ko laaj fatiha du la ko mën a tari. boo ëllëgee boo ñëwee di ko laaj fatiha du ko mën a tari. wala mu am jikko bu ñaaw. wala mu am jikko bu ñaaw. sa xol naqari. sa naqari. loolu moo tax olof ni. ne loolu moo tax wolof wax ne. sa doom sa doom jooyloo ko balaa mu lay jooyloo loo. tey Ndeye Tické mii toog. tey Ndeye Tické mii toog. Talla Sylla mii toog. Talla Sylla mii toog. kilifa yi fi toog yëpp. kilifa yi fi toog yëpp man mii toog di wax. man mii toog di wax. su waajur dafa fu ñu jaarale woon suñu waajur yi dafa am fu ñu jaarale woon. moo tax tey ñu mën a toog. moo tax tey ñu mën a toog di wax ñu ñuy déglu. kon kon damay daal di waxaat rek damay daal di waxaat ne nañ yar njaboot gi nañ yar njaboot gi parce que ñooy yaakaar réew mi ndax ñooy yaakaaru réew mi ëllëg ñun dañuy dem ñun dañuy dem lu mu yàgg-yàgg nañ dee lu mu yàgg-yàgg dañuy dee ku nekk xam na ni ku nekk xam na ne kullu nafsin nekk rek mos dund dina mos dee te yàlla nee na kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalaali dund rek dana dee ba des si yàlla suñ borom kon nañ jaamu yàlla nañ jaamu yàlla topp yàlla topp yàlla jàppale jàppale nguur gi nguur gi jàppale jàppale maire yi maire yi jàppale jàppale instructeurs yi nga xam ne ñoom ñoo réew mi di ko doxal ñi nga xam ne kàngam yi nga xam ñoo réew mi yëpp di ko doxal nañ leen jàppale suñu réew daal di dal pour suñu réew mi daal di dal parce que nit amul ku dul réew ndax nit amul réewam parce que hubbul watani min al iman bëgg sa réew dafa bokk ci gëm yàlla te gëm yàlla te gëm yàlla euh, euh, bëgg réew ci la bokk bëgg réew ci la bokk parce que boo bëggul euh, sa réew ndax boo bëggul sa réew sa ngëm matagul sa ngëm matagul kon soxna ndey tike kon soxna les bienvenus. Serigne Serna ma nee na mu nga dal ak jàmm. yow ak waa Benno Bokk Yaakaar yëpp yàgg boo bokkoo Benno Benno Bokk Yaakaar yëpp. ak seen i daal. ak seen i daal. ak seen i yére. ak seen i yére ak seen i oto yëpp. ak seen i oto yëpp. soyez les bienvenus. ngeen dal ak jàmm. vous êtes chez vous. yéen a ngi seen kër. wasalaam wasalaam. allahumma rabbana izra lima ituna samay tukunu lana idan li walina wa akhirina. amiin waaye xaalidina fi la yabqa xawla wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salaamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. yàlla na